bon comme niñ leen ko waxee c'était juste pour euh, présenter le lancement de l'album de Camembert produit par le label NEC Studio HS. C'est un produit 100% soi on peut dire. Et comme que ñun tey nous bi dañu ko bëgg mom daf ñu représenter à comme à Dakar muy Camembert motax euh, ñun ñi ñëpp ñu ñëw teew ci mom ñëw parce que bés bi bés bu rëy la ci ñun aussi parce que c'est un travail de longue haleine bo xamante ne nii mëne na ñun suivre nañ ko xam nañ li ci biir coono yi mu ci daj mais il a été sans relâche té lolu nonu jarna félicité dem produire album légui yombatul kon tey jii dañuy ñaan képp koo xamantene ni nii Cees nga li ñuy def nii nga mën ci fier sa bopp nga mën ci am sa yëg-yëg mu doon loo xamantene ni nii tey jii tu vas rester fier pour ta ville pour ton artiste et c'est très important. Euh, balaa may sori nag ci kàddu gi nag boo damay euh, présenter Camembert après moom le reste dina bu ngeen bëggee laaj yeeg tout ce que vous voulez savoir il est là devant vous il est en mesure de répondre à tout cela de son vrai nom il s'appelle euh, Mamadou Diallo alias Camembert euh, Camembert c'est un artiste rappeur il a débuté vers les années 1998 avec le groupe Africa Black Joko groupe qui noonu yëpp un groupe yu lañu demna domaine mais c'est un groupe qui avait existé depuis 1998 formé par d'autres membres avec Camembert. Après, ensuite, le groupe s'est transformé en groupe nommé WIAR. Nous faisons nous aussi WIAR. Après ce groupe, Camembert qui a commencé à créer, mon petit côté solo. Dans créé KSD, CAS Sénégal Deki. ci ba jamono non non non la ko la don après bi mu fofu nous mu formé ak groupe Nyang Town a yi nañu aussi ci hip hop et commence à s'imposer dans le mouvement hip hop Galsen di dugg Thiès di Dakar un peu partout c'est là qu'il a rencontré en 2014 il a été sollicité même par Daddy Bibson que tout le monde connaît dans le mouvement hip hop pour former ensemble le groupe Warriors à Dakar ils ont pu former ça et ils ont eu réalisé en 2014 en 2004, excusez-moi, merci Camembert. En 2004, l'album Jezbo, suivi d'une tournée nationale. En 2006, l'album Nyoko Defat, en tournée Mali, Mauritanie, Gambie. En 2008, l'album Santrek, qui a été primé meilleure révélation de l'année. En 2010, l'album Samay Niggas, prix Awards et tube de l'année. En 2010, mon participé au FESMAN. En 2011, alors il quitta le groupe Warios et fait son retour, son comeback à Kies. pour entamer sa carrière solo. C'est là où est né le camembert qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est grâce à Amassi qu'il a pu réaliser son premier album solo. Amassi, c'est un membre fondateur du groupe Sikisaka que tout le monde connaît à Kies il n'a ménagé aucun effort pour la réalisation du projet de Camembert. Et après, il va faire ses développements. Je vais vous laisser à l'explication de mon ami Amassi. Et c'est lui qui a réalisé cet album que vous voyez tous ici, le Yobel. missionnaire de mission Donc, et je vous en remercie de votre présence de votre attention merci beaucoup. maa ngi nuyu salle bi maa ngi nuyu ñëpp bon di leen jéggalu ci retard bi di dolliwaat euh, sama kóllëre di feddaliwaat sama kóllëre ak yéen di leen wax ni lii bu amee problème mu temps la rek mais. comme Camembert moom <laughs> ay bagages dafa teew Non la demee bon euh, Seyni Camara wax na ko léegi joxe na biographie bi album yobol bi mom nañ euh, pendant trois ans trois ans yo xamanteni dañu qualité parce que studio label on avait des instruits amoon na idée bind bi mais problème bi moo dañu am luñu qualité lay muy euh, euh, album ñoo fi génn Sikki Saka enfin Camembert ñëwaat donc bëgguñu woon euh, Thiès ci loge biñ ko dugaloon niveau au niveau de Dakar dañu bëggoon bu ñuy ñëwaat dañuy présenter loo xamante ni lu am qualité la mu am hologramme am euh, design bu baax am instru yu baax bind bi baax loolu moo yéexaloon album bi ñu liggéey ci pendant trois ans 2016 ba 2018 loolu la woon bon album bi mu ngi euh, am huit titres plus intro outro benn bi mu ngi tudd Ndóol benn bi mu ngi tudd next épisode benn bi mu ngi tudd France France benn bi mu ngi tudd Sénégal benn bi mu ngi tudd dégg naa seen wax benn bi doom yite intro ak outro bi noonu la demee ah space waaw benn bi mooy euh, label bi euh, Thiès la nekk parce que dañu am benn esprit bu ñu doon kiwee bon parce que amoon naa ay proposition yu bari euh, au bi mais man comme dama ne euh, camembert bu Thiès fu ma dem Thiès bi daf may topp donc damay def loo xamante ni typiquement Thiès lay doon un produit de Thiès album bi lépp lépp lépp fii lañ ko defee au niveau de Thiès euh, deuxième question bi mooy euh, man awma déception ci musique parce que man musique day diis sax ci dégg-dégg et musique pour man mission buñ ma tànnal la mission boobu noonu moo may jaarloo comme ni ma war a xamanteeg yow tey suba nga dox sa dox ma dox sama dox ginnaaw suba ma xamanteeg keneen pour euh, créer ouverture par rapport ak li ma bëgg a def parce que yow dafa am benn contenu bu ne ci yow continuer boobu laa soxla pour man ma feccali sam bopp mais ñooñu man ak ñoom ñu ngi gisee tout le temps ñu ngi déggante donc awma ci déception Da ne bilsem? Voilà, ha? Ha? No, no, amul, amul ben ki, amul ben problem Paske deja, dafa am lo xamanteni euh, Nyon non lanyo doxe Mwoy ke ni, dafa am lo xamanteni Apple, adina lep apple Apple app il faut nous séparer donc euh, l'heure l'heure avait sonné l'heure avait sonné l'heure avait sonné et pourtant on reste toujours des frères Ok, donc je pense que pour la deuxième question, euh, euh, le de en tant aussi

Benim babam kitap biyografileriyle ifade edildiğine göre bir kız beklesi. Masalının tamamen beklesi. Sebesi bu. Ha? İfade edilmesi kabul. Vay. Mutlaka kendine bir dedi. Kasama bir bunu dedi. Dedi onu ya. Bunlara ne kullanı dedi ko. Ne komak ne var ya soru. Kudu numara kuruyorlar ya. Kesam. Filan, filan lagi. Belum sifat ya soru. day am day am. day waaye camembert waaw pour ok loolu nice mais euh, ma ma ma ma ci parce que camembert bi KM euh, bi kalimatu la MA bi maarifa benn M bi badar e bi équipe R bi réalité beneen bi ego ay mots yu may utiliser comme je vis dans le marifatoullahi, donc faw mu kii ci mooy kalimatul maarifatullahi baral ego ah. la demee loolu mooy camembert ah. jaajëf ah. non non non. la pauvreté waaw soxna si xam nga ni euh, ñun Sénégal léegi-léegi maa ngi toog ak sama benn xarit ci bunt bi mu ngi may expliqué mu ngi wax euh, booy taalibe bi dañoo rusa dañoo rusa tàllal pot rek mais toll nañ ci yelwaan est-ce que nga boo xoolee euh, à chaque fois ñun dañuy naxee suñu bopp bànneex boo yëgul gëm ni suba dina baax comprendre nga loolu dimension doolu la à chaque fois kundóol mom moy naxé bopam balay dewen dina bax te yow du du waxuma la ça veut dire que gaay à chaque fois dañu am espoir mais dañu son buñu bu benen mot buñu utiliser bu gëna sax dañuy wax dañ koy utiliser mais ndol nga mën pour comprendre tu parles de la pauvreté tay euh, ndol mom waral sa yar dignité yenn valeur yi ci jigéen ñeeg ci góor ñi muy rot ba dootoo comprendre kii góor la wala jigéen ndóol moo tax virus bu virus bu ñëw yóbbu la parce que yonent bi nee na su ma sañoon du ma ñàkk sama doom du ñàkk parce que ñàkk mooy indi bépp xeetu vis te baaxul ci jullit day rësal ngëm c' est pourquoi la tax ma def ndóo la. waaw bon salaamaaleykum maa ngi nuyu public bi ñëpp ñu fi teew. donc euh, album bi moy comme comment lim ko expliqué donc on l'a lié nañ ko pendant trois ans et puis ça a été tellement dur parce que album le bo xamné il y avait pas les moyens donc il y avait pas les moyens ci côté bo xamné bon gissone woon ku la jàppale amul sponsor on a cherché beaucoup de trucs ay partenaires yo xamné bon bëggoon nañ ñu japp ci album bi mais bon comme que comment par rapport à ce qu'il fait bon il fait pas comme lui qui euh, wax parlé, euh, Malik. il fait pas il fait pas un nouveau truc donc pour nous, qui sommes ko jàppale ça sera une chose très difficile quoi bon faut vraiment si par rapport à li a wax que euh, ak album bi dañ ko comme album Tchessoa, xam que ça a été conçu à Thiès ak loolu donc c'est pas ça parce que lalbum yenn instru France lañ ko defaree y a des y a des trucs yoo xam ne dafa am koo xam dafa jóge ba France indi les instruments. donc les autres trucs ont été faits à am na yoo xam ne jóge na États-Unis jacket yi on l'a tiré à New York lañ ko tiré xam nga donc euh, par rapport ak mix yi Moussa Diagne mobile sound la nag moom il est venu jusqu'à Thiès am na yu mu fi mixé am na yoo xam ne on l'a mixé aussi à Dakar donc bon album bi c'est bon bu ñu 100% produit thiessois c'est-à-dire que bon le gars il est de Thiès bon album bi bon yenn qui Thiès lañ ko defee rek yooyu mais tout l'ensemble de l'album c'est pas seulement à Thiès qu'on l'a fait donc faut, il faut tas quoi je sais pas. ok euh, beneen question bi aussi comme li wax na gars il est bari oui. est-ce que bu que benn produit boo xamante ni mën na nekk un produit moo rafet ñu ne la dafa war a camembert dafa war le xëy en tant que producteur tu es là une garantie a mënoon gars yi là. non non je ne pense pas que mon parce que l'album est beaucoup de gros. suivi bon moi, suivi Il y aura des dynamiques tournées par rapport à l'album. sinon on va bouger un peu les régions parce que actuellement bon ni une tournée pour l'album. Nous avons à radio parce que demain euh, je crois BSFM après il doit passer par Jiji demain euh, après demain a une émission avec Massar donc comme euh, bon on est en train d'entamer une émission avec moi. bon après les radios, parce que y def concert dans son quartier le concert parce que ben, sa se fait autant. après chess après on va on va sortir à Chess. donc on va faire Dakar tout ça parce que a na def euh, les émissions de radio à Dakar quoi parce que kale il yenn a émissions à Dakar après il va sortir quoi pour faire euh, ay trucs. ok je pense que le temps que commande bi parce que gars on ñu le war a jël euh, manager lui am nañu sens am benn chambre féminine du ñu am euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu maa nuyu public bi euh, camembert euh, produit bi produit bi c'est juste si dama bëgg revenir si question vous mu posé woon sànq le rap qui le, son la kii la bi nga xamante c'est pour transmettre un message léegi dañoo bëggoon déjà ñu commencer si école d'abord pour éducation xale yi d' abord avant ñuy accéder si yeneen yi grand yi parce que lu ñu ci soxla mooy li mu wax si biir euh, ndóol yitte li mu see expliqué doon yitte sa doom doon sa yitte et puis est important ça aussi xam nga léegi déjà dañoo bëgg dem ci école yi xale yi. déglu ko am si éducation déglu si déglu lépp d'abord avant ñi accéder si yeneen yi loolu rek laa amul ma si expliquer merci beaucoup. mais euh, waaw Youssou xam nga waaw tey euh, boo xoolee yóbbal bi yóbbal euh, li ko booleeg titre album yi nga wax pour ba mu tudd yóbbal mooy que ni recent peace sama papa laa ci delloo laa ci kii daal rendre hommage euh, ku nekk am nga am na ñu am waajur ñu dem am na ay ñaan yu ñu yóbbante seen papa wala chaque vendredi ñu dem seen papa donc loolu yóbbal la ku nekk dund nga benn loof boo xamante ni loof réel loof la après jàllul parce que yàlla tudd ko am na solution moo tudd France Froisse parce que côté peut-être sama côté la daaw ne moo tax ma ñàkk moo indi France bi kooku dañ koy yóbbante loolu xeetu yóbbal la nga comprendre loolu beneen bi mooy next épisode dañuy yóbbante nit ñi que nii hip hop bi actuellement nii benn tendance bu fi am la tendance boobu noonu ñi ci nekk di ko def ils n'ont parce que dañ lay wax yow yaa fi nekk yow yaa xew créé tuñu léegi showbiz léegi xew biis moo am booy dañuy ñëw télécharger sound jàmbur teg ci reprendre ci woy jàmbur après booy partagé ko ñu ne da ngaa xew alors que boo rombee jam ñaa